Pape Mamadou Diop ñu ngi lay nuyu. waa maa lay fay ci li jëm ci conseil des ministres bi gis nañ ab projet de loi bi nga xam ni daan nañ koy teg ca kaw taabal bi euh, li ni mel itam du yàgg dara war na jàll ci assemblée nationale ngir mën a effacer ay faits yi nga xam ni moo fi amoon atum 2021 ak 2024 euh, li ni mel daanaka ci dialogue bi la ko président de la république Macky Sall daal di yëkkatee kàddu yu ni mel waaye kàdd yooyu naka mu ko yëkkatee rek am ñeneen ñi nga xam ni itam nee nañ d'accorduñ ci mbir mi ni mel ndax am yow ci nga bokk waaw d'accord ñu ci parce que euh, lu simple la Macky Sall mënta baale ci place ñi nga xam ne ñoom la ñu tooñ. Macky Sall dara dalu ko mais imagine tous ces victimes là de deux mille vingt et un à deux mille vingt quatre ñoo xam ne économiser nañ seen xaalis def ko ci njaay meeg jënd bi ñu ñëw taal ko ñoo xam ne am nañ seen doom investir ci ñoom seen njàng seen santé et cetera ñu daal ñëw daal leen ko reyal ñoo xam ne dañoo ñëw détruire des biens publics waa léegi yow. ñoo xam ne sax d'ailleurs ci seen police ak seen gendarmerie la lañ bokk ñu gis leen ñuy boom ay xale ci mbedd Dakar léegi tey ñu daal di xëy ñu ne loolu yëpp tey ci sunu intérêt en tant que politicien xam nañ ne dañoo dem te kiy ñëw mën nañoo toppee lii ak léeg lii nañu jël benn loi faase loolu lépp daal di ko effacé nga xam ne même bu ñu fi jógee du ñu am benn benn benn jafe-jafe loolu nag dañoo wax ne mënutu la nekk ak fu ñu ko mën a décider mënutu la nekk parce que d'abord vérité dafa war a am mooy ñu daal di xam ñan ñooy responsabilité ñu daal di ko situer ensuite ñu daal di rendre justice ñi nga xam ne ñoom la ñu tooñ bu ñu paree nag mën nañoo jubo loolu mais tant que defuñu loolu ci benn problème non non jubóo bi aw mu ci problème wante faaw ñu daal di euh, ku nekk ñu daal di ko jox àqam d'ailleurs parce que ñi nga xam ne dañoo dee mais dañoo am yàq ñi nga xam ne dañoo deele dañoo am àq ñi nga xam ne dañoo yàq seen alal dañoo am àq léegi coowal politique mënta tax ñu daan leen tooñ ba pare après politiciens yooyu noonu indi coow li dem dajaloowaat ne ñun nag la ñu defoon ci njomb yëpp ba mu jar ay bakkan rotceeg yooyu yëpp nañu ko effacer dem ci leneen mais loolu mënta nekk même saa bu ñu ko décider ci ci dialogue nee naa la dialogue dialogue du décider dara dialogue gu Macky Sall ay ruse politique la woo ay nitam ay xaritam pour di jéem a wax ne nañu décider lii moo la nañu décider lii mais la ñu fa décider ça n'a rien à voir avec les lois de la République donc ñun au lieu ay amnistie yu kenn xamul nañu def benn commission d'enquête indépendante boo xam ne moom mooy leeral li nga xam ne moom moo xew diggante deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre ñi nga xam ne dañ cee salfaañe seen àq ñu daal leen ndàmp ñu daal di rendre justice responsable yi ñu daal di leen teg ay daan ensuite ñu daal di jubo danga jàpp ni li ñu mel amnistie bi diversion la. diversion la parce que parce que lii nii yëpp man dama jàpp ne Macky Sall da koy def rek pour mën a gagné waat temps maanaam moom nu mu mën a def pour gën a toogaat gën a yàggaat parce que loi bi ni mën na dem sax assemblée nationale député ya nekk foofu nekk foofu di def ay amendement de gauche à droite affaire bi gën a xëcc ñu naan loi ba yéeg na wàcc na muy yaakaarloo ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci prison yi génn et puis affaire bi du mujj fenn moom amatul doole ci dëkk bi ba nga xamee ne euh, defut mënta def troisième mandat benn weer moo ko desee ci dëkk bi lii nii yëpp waru koon a jéem ay loi gauche warutoon a jéem dara dara dara dara dara lu dul organiser élection yu jaar yoon ñi war a bokk bokk sénégalais tànn seen président ñu jàll ci leneen lu mu fi defaat lu mu fi defaat jàppal ne boppam la ko defal par rapport ak njombe yi nga xam ne moom la def ci euh, fukk ñaari at yi wees weesu pour justement mën a couvrir boppam ñu ci bari dañu ne euh, amnistie bi itam dafa am euh, lenn nga xam ni moo di lees waxul peut-être ñee nañ ñu ci bari ne nañ day protéger ay ñoñam yow loolu nga gisee. waaw mais mais mais loolu rek la mën a nekkee. parce que Macky Sall yaakaaruma ne yéene na jàmm ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom nañu tëj kaso. Macky Sall ce n'est pas parce que dafa yéene jàmm ñi mu tëj kaso moo tax mu ne day amnistie Macky Sall dafa bëgg a protéger boppam ak ay ñoñam. pour que saabu bu jógee président bi ñëw du mën a euh, du mën a jël boobu doonu dossier daal di ko teg ci table bi daal di mën a euh, euh, mën leen a traduire en justice donc Macky Sall li muy def yëpp pour boppam la. léegi li jëm ci loi projet amnistie boobu la nga xam ne war nañ ko yóbbu ci assemblée nationale junj nga ko sànq lan moo war a doon taxawaay kon député yi. waaw député yi li ñu war a def moom mooy ñoom ñooy les représentants du peuple. Mhm. loolu moom la leen euh, constitution bi jox maintenant boo nekkee représentant du peuple yow mënuñoo jël peuple bi pendant trois ans quatre ans ah ñu yàq fi seen ay liggéey rey fi seen ay doom ñii ñu daal leen góob lu nekk fa xew fi léegi yow mënoo ñëw en tant que représentant du peuple nga ne man kat peuple boobu amul benn problème jàmm rek a ko soxal donc Euh, li fi xewoon yëpp nañ ko faase ñi nga xam ne rey nañ euh, libre ñi nga xam ne yàq nañu alalu jàmbur libre dara bañ leen cee fekk nga xam ne tooñ bu rëy la boo xam ne ah li ci war nag moom mooy rétablir la justice ñu ne baal nañ leen ko et ku nekk na na dem yoonam. loolu loolu loolu je pense pas que ni député yi nañ ko voté. d'accord ñaari fan ci weeru juin moom la dialogue bi daal di proposé. ngir ñu mën a dem ci élection euh, li ndax yow ànd nga si wala dàq nga ko. waaw loolu man dàquma ko constitution bi moom moo ko dàq. constitution bi moo ne conseil constitutionnel nga xam ne moom mooy euh, euh, moom mooy garantir ndeyu charte réew mi constitution bi daf daf ko wax ne yow boo xesee jël dogal dogal bi moom jëfe rek kenn mënatu ci dara. Mm-hmm. waa léegi bu ñu jàppee date boobu noonu bu ñu jàppee datu le 2 juin bi mooy tey dogal bi nga xam ne conseil constitutionnel dogal na ko ah mais respecté wuñu ko parce que conseil constitutionnel dafa wax Macky Sall ne ko organiser élection balaa le 2 avril loolu na ko wax conseil constitutionnel moom moo jël liste définitive ne ne man kat candidat yii nii ñoom laa retenir mais ñoom boo gisee li ñu waxtaan ci jalo bépp jël date yóbbu juin naan na kii bokk kee na bokk kii na bokk loolu yëpp c'est contraire à la constitution te loolu war ñu ko def donc seule date bi nga xam ne moom la ñu mën a jàpp mooy fii ak avril ñu daal di élection lu fi Macky Sall defaat dafa bëgg a toog tee nguur gi ba heure bu ko neex mu daal di xool nu mu def. pour dem man li ma jàpp sax moom mooy Macky Sall organiser ay élections y leer tax koo lu tax tax koo jóg ah mais mais da gis rek ni muy ni muy doxale xam nga wax ji yomb na doyal naa ce que wax gauche wax droite mais li muy def jàppal euh, datu élection jàppoo datu élection ñu ne la sa mandat le deux lay jeex nga ne bon nañu waxtaan le deux nu muy demee parce que article trente six alinéa deux wu constitution bi nee na man dama war a toog saar ki nga xam ne moom moo war a wutu ma daal di ko fi xaar daal di ko nuyu daal di ko jébal lenge alors que yow ki nga xam ne moom moo la war a wutu nee nañ jàppal datu élection pour que askan bi tànn ki lay wutu moom mu ne du jàpp dat kooku xam nga ne bëggut a dem élection bëggu ko maintenant nag ñun ñoo war a taxaw war a farlu teg ko pression pression populaire pression judiciaire pression même dans son camp parce que ñu ci bari tey au niveau de son camp àndatunoog moom ci li nga xam ne moom lay def ñu teg ko pression mu daal di reculer conseil constitutionnel décider li muy décider ñu daal di ko appliquer léegi li jëm ci intégration Karim Wade ci élection yi nag ak spoliés yi ban taxawaay lan ci naraam. ma ne loolu yëpp ay tappale nag gis nga am nañu dëgg amuñu dëgg lii yoon moom mooy li conseil constitutionnel décidé mooy wax nañ leen wuti leen parrainage ngeen ñëw euh, règle yi lii la charte yi pour pour nekk président lii la mais Karim Wade moom noonu ñuy wax mais Karim Wade il a eu six ans pour pour préparer sa candidature de deux mille vingt quatre. boo deux mille dix neuf moom nekkoon candidat non. oui ñu daal di ko donc donc donc moom ça veut dire que ni deux mille dix neuf il n'avait pas renoncé à sa nationalité léegi yow deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille deux mille vingt trois deux mille vingt quatre yow pendant cinq ans mënoo renoncer sa nationalité ñu daal di nga daal di bëgg a lëbëj élection ndax renoncer wu ma sama nationalité loolu ay caaxaan la ñi nga xam ne ñoom nañu woo spolier yooyu waa léegi les dix neuf nan nañu def ba jàll. mooy mooy laaj bi ma a laaj. waaw les dix neuf di dañoo def liggéey bu am solo sérieux dem wuti ay parrainage daa di ko segg benn par benn daa di ko setantal ah joxe seen caution respecté ay règles yëpp ñu ñu daal di am chance ñu ñu daal leen kii ñu daal di jàll c'est tout waa léegi yow dina def compétition vingt neuf jàll fekkoon ne benn nit nit kesee jàll sax ñu ne bon problème am na la moo tax ñi ñëpp jàll ñu mais dix neuf a jàll waaw léegi xëy nag nañu dem élection ci dix yooyu sénégalais yi tànn seen président loolu kese la léegi moom Pape Mamadou Diop nemmeeku nañ benn décrispation ci space public bi ñu ngi koy fan yi yëpp ay euh, prisonniers ñu ñuy duppee sax ñu ci bari nee nañ ay prisonniers politiques lañ ñu ngi leen di bàyyi alors li ni mel lan moo ci sa gis lu jaar yoon la ci jamono yooyu seen candidat yéen mu ngi ci prison bi gis nga politique dama koo teg toujours ci responsabilité d' ailleurs boo gisee téere bi bi mu génne daal di ko le trente décembre bii nii weesu dama wax ne l' appel à la rupture pour une politique sénégalaise authentique et responsable ma wax yan solution Sénégal war a adopté yan réforme yañu la ñu war a adopté ci sunu gouvernance politique ci sunu économie ci sunu mbay ci sunu industrie ci sunu protection des couches les plus vulnérables et cetera et cetera daal di wax aussi ban responsabilité la acteur politique yi war a am loolu man dama koo gëm xam gis nga décrispation lépp lu ca aju mooy ku nekk na am responsabilité maanaam booy wax ci public nga daal di wax loo loo xam wax lu mën a nekk wax loo xam ne du taal dëkk bi booy jëf nga nekk un acteur politique bul def loo xam ne mën na taal dëkk bi bul utiliser ay loi ak réglementation ah de gauche à droite instrumentaliser ay institutions pour mën a lijjanti des comptes politiques après affaire bi lëbëjoo nga ñëwaat naa ma décrispation nit ñëpp dañoo war a agir avec responsabilité dans le respect des lois et règlements de notre République bu ñu ko defee dëkk bi day day na ci jàmm crispation du am sax boo décrispation di am ñun foofu nañu woo les les acteurs politiques à plus de retenue à plus euh, de responsabilité dans les prises de parole dans l'action publique ci noonu rek nañu mën a amee jàmm dëkk bi ñu ñu am projet daal di ko jël daal di ko doxal ñi war a opposé wu opposé wu aussi dans la démocratie moom mooy proposer des idées nouvelles wax ne man li ànduma ci et cetera askan bi tam et puis ñu la vie de notre ngi lay sant di la gërëm bu baax baax. waaw merci beaucoup maa ngi lay maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi jërëjëf. di fàttali ni yow yaay vice national bu parti gox yu bees bokk nga itam ci coalition Diomaye président. coalition Diomaye président.